bala mu ngi noonu ah li may soppe samay soppe moo ki bëggee pro yi nga xam yéen yéen ñuy ah, yàgg di di suivre à chaque fois da ngeen daan gis kaana taxaw fii tey nag man nag tax maa fa taxaw tey nag ñu ñëw tey fii nga xam ne lycée mooy lycée li mbaaw da mbaaw moo loo fek fekk fii élèves yi élèves yi wala leen poser question question bi nag damay bàyyi yéen après di ngeen comprendre question bi wala ko soit mu wax question parce que dafa am ñu taxaw sama ginnaaw te bëgg ma dégg <laughs> ñu dégg question bi kon Babacar su baaxee nga topp ma. noo tudd. Fatou Ndoye. Fatou mhm. ah, nga. waaw ban première S2. S2 ah macha allah kii ab la de <laughs> ah scientifique nga. waaw ndeysaan voilà ah, Fatou Ndoye dama lay posé benn question mais question bi nekkul si wàllum scientifique wàllum français la français français la ndax dégg naa yéen scientifique yi yéen ay français. ah la. la kay parfois rek. Ah, le verbe pleuvoir au subjonctif passé à la troisième personne du singulier le verbe pleuvoir. Ah. conditionnel passé. pas conditionnel passé. Ah qu'il pleut, ah qu'il pleut, ah qu'il pleut. Hein? Il pleuvait. nous <laughs> il pleuvait. non dangay wax correctement parce que li wax ni man man la. pleuvoir au passé. Ah. Ah. Ah! <laughs> élève nga. waaw élève la. ban classe nga def. première L2. première L2 ah macha allah yow abi grande littéraire nga de. billahi. billahi d'accord noo tudd. Rokhaya. Rokhaya Rokhaya. wala pour benn question. question bi conjugué soxla nag. dama bëgg nga conjugué ma le verbe pleuvoir au subjonctif à la troisième personne du singulier. Pleuvoir. Ah. Je... Il, il pleuvra. Il pleuvra. Il pleuvra. Il pleuvera Il pleuvra. mais là il pleuvera oui nga yow ku jàng ku la jàngal hmm? suñu prof chimie. seen prof chimie bi. <laughs> yow nga ne seen professeur chimie moo la jàngal lool. la li la posé que lii la du PC. waaw mais ñun suñu chimie bi dafa aay moo tax dañuy jàngal loolu yëpp. seen chimie bi tudu monsieur jaxate monsieur jaxate mo mo jangal lol professeur Slim Simi dafa ay wala mu jangal PC wàllum PC mu jangal walu literature waaw kon monsieur jaxate machallah allah lee ci ngalaama lee ci ngalaama loo sa lo lo ko réponse bi il pleuvera il pleuvera au <laughs>

passé à la troisième personne du singulier. Subjonctif passé. waaw ah. subjonctif passé. qu'il pleuve. qu'il pleuve. qu'il pleuve. dégguma. qu'il pleuve. dégguma de. ba yow nag yow subjonctif passé mu gën naa ko jàng tax mu ay présence sax subjonctif passé dama ko gën a jàng wax dëgg fa yàlla temps man si ay roman laa nekk. Mm. littérature ba ak yoon subjonctif passé mu wax dëgg fa nag yàlla gën naa ko lire moom. ne kàlla kàlla lay te seul le roman. le roman. Le roman est un œuvre littéraire écrit ou non man waaw man sànq roman laa doon def mooy loolu. Le roman est un œuvre est une œuvre littéraire euh, est un genre littéraire genre fictif ou genre mooy waaw kon nag Baol Peulh mooy loolu. bu leen jàpp damaa ni laa rek mais justement que affaire yi idée mooy réew sama bopp mais je suis pas nul ah. instant man lam laa dab laa. ma noonu la demee man nag man damaa yaakoon si benn domaine nga ñu puudar sa mais nekk woon affaire jàng man yaakoon affaire jàng sax nga may laaj. waaw ah. yaakaar domaine boo xam ne nii yàlla yàlla may. bag bi dégg. incha allah waaw ah, rafet na gars yi yàlla buñ la posé le roman yàlla buñ la jox sujet roman. ma ko joxee dama koy dóor de. ah bon. Euh, grand noo tudd. man man Youssou laa tudd. Youssou fi nga jàngee. non mais dañ nga. ban classe. troisième. troisième d' accord Youssou benn question bu ma lay question bi nag lay doon conjugaison lay doon. ah non waaw conjugaison waaw vas-y. d' nga conjuguer ma le verbe pleuvoir au <laughs> subjonctif passer à la troisième personne du singulier. singulier. Le verbe pleuvoir wow. au subjonctif passé à la troisième personne du singulier. Hey. Verbe pleuvoir. Au troisième personne du singulier. Hein? Il pleuvait. Il pleuvait. Il pleuvait. Awi ah, nggak sebab, wul nggak sebab. Wow, dakor. <laughs> Banyak tuh, mur, mur, mur elem nggak? Derek, gak Jangkat lah, jangkat nggak? Mur yang nggak kesel, nyak nggak kesel, <laughs> ah? Nggak aku bakal kesel. ñaama kese d' accord léegi nga kan ab jànkat nga jànkat kon ça veut dire que question bi ma lay bëgg a posé kon di nga ko di nga ko répondre. waaw d' accord moo nga conjuguer ma le verbe pleuvoir au subjonctif passé à la troisième personne du singulier. il pleura il pleura il pleura. Bon, ça va ah, Ça va bien élève nga. waaw no tudd. Makod. Makod. waaw ban classe nga def. troisième. troisième d' accord Makod dama bëgg nga conjuguer ma le verbe pleuvoir au subjonctif passé à la troisième personne du singulier. qu'il pleut qu'il pleut qu'il pleut. Ah! boy ça va. ça va bien. yaa ngi ça va. élève nga ah. élève là ban classe. troisième. troisième d'accord booy dama bëgg nga conjuguer ma le verbe pleuvoir au subjonctif passé à la troisième personne du singulier. Je pleuverai. Je pleuverai. Je pleuverai. Hein? ah. Je pleuverai. dëgg mal de boire. de. Je pleuverai. daa mel loolu laa jàpp. ah. daa mel loolu laa jàpp. ah loolu nga jàpp. <laughs>

I L. waaw waaw. apostrophe L euh, après nga A I E A I E P P L U I. yaa ngi jàpp. waaw noo tudd. Mouhamed. Mouhamed Mouhamed yow ab élève nga. waaw. ban classe. sixième. sixième. ah Mouhamed li may posé ba di nga mën ba di ko mën. yaakaar mën naa ko. mën nga ko d' accord dama nga continuer ma le verbe pleuvoir au subjonctif passé à la troisième personne du singulier. loolu yomb na de. yomb la. qu'est-ce que ça fait le? dégg ma. qu'est-ce que ça fait pour le? ma da ngay wax wax ji mu leer. qu'est-ce que ça fait le? qu'est-ce que ça fait le? qu'est-ce que ça fait pleu. merci bébé. ça va. ça va bien. Euh, defal ni yaa ngi ci

Euh, Q U euh, apostrophe I L après nga E S T E S T E S T P L U I E. Merci. merci beaucoup ça va nga def. Mm. oh macha merci Merci. Merci. Merci. Merci. troisième. troisième mm. yow troisième. Ah, d'accord. Une question d'accord Ben question le verbe pleuvoir mm-hmm. au subjonctif passé à la troisième personne du singulier. Il est plus, il est plus, il est plus. Hein? Il est plus. est plus. Qu'il est plus. Qu'il est plus. Hein? Qu'il est plus. Euh, Q euh, Q U apostrophe IL l kil et E E s EST e, e E s EST e, e E s t ah voilà non non non du EST en a nga Q U apostrophe IL. yaay ah. e, bi a i t mhm. plus bi l U chapeau après T. d'accord merci beaucoup oui nga sa bopp oui nga bien sûr. d'accord merci beaucoup ah, ah, peut-être. <laughs> voilà mi ngi doon xam naa am ngeen contentement lool képp ku amoon stress stress lañ la dañ la comme man mii ba muy ñëw ma amoon stress sama stress dañ na ak booy surtout tëdd waa lycée Cheikh Amadou Kane ah macha allah de seen professeur yi macha allah de waaye man mii tamit macha allah man mii doon posé kat ah mu ngi noonu nee naa la képp koo xam ne da ngaa amee. stress wala képp koo xam ne da nga bëgg foo toll di ree del suivre bëgg yee Truth wala nga ma suivre man mii la bégeuse boo duggee TikTok Instagram Snapchat fu dugg fekk ma ma maa ngi fa tey nag ñu ngi woon fii tey laaw mbaaw beneen yoon nag ñu lay demaat feneen indilaat leen ak yeneen élèves yi yeneen élèves ak kon kon gis ma ñoom fii non du bye bye merci beaucoup je vous aime sama beneen euh, kii euh, euh, euh, comment dire MC Kan MC Kan nag ah nekk temps si tournage tournage moo tax gis gisal nañ ko mais MC Kan incha allah bye bye.